الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمن إمام الله إلى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yu tedd yi bu tedda bi sayduna wa mawlaana imaamullahi alayhi salaatu wa salaam kay muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne cant ñel yàlla mi nga xamee ne moo bind mbindeef yi dellu def ci seen biir ay yonent dellu tànnaat ci yonent yooyu muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko muy gën jaa tedd yonen tey gën ji mindéef dellu def xeetam wa muy gën jaa teddi xeet yi nee na xéewal ak mucc yàlla na dotteeku ci moom moomu sanga bu tedda boobu sayidnaa mawlaana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam yaag saabaam yemboole seen te mu sëlmal ci moom defal ko jàmm sayidnaa imaamul mahdiwul alayhi salaatu wasalaam wax na ne ginnaaw loolu ubbeeku googu nee nag tukkee na ci ilimaani yàlla ja ke yàlla jiital ci kaw mbindéef yi jëm ci mbooleem ay taalubeem ña ak li des ci jullit ñi góor ña ak jigéen ña mag ña ak ndaw ña neene ne mucc ak yërmande yàlla ak barkeem yàlla na dotteeku ci yéen ak seeni ñoñ nee de li waral xutba yi ma jëme ko ci yéen mooy xanaa di leen yëgal ne man de maa ngi leen di nuyu di laaj seeni mbir de seeni yiw seen jàmm ak seeni kër te nag di leen dénk ngeen farlu ci topp yàlla ak ab yonentaam te ngeen sax si di feddali seen ngëm saa yu ne ngeen di feddali seen ngëm di ko dëgëral di jonjoo ak lépp loo xam ne moo koy yokk te moytu lépp loo xam ne moo koy wàññi mbaa di sa tàbbal ay jiixi jaaxa nee ne nag na ngeen di jëflantewu wu yiw te ngeen soppante ndax diine de laay biir la nee na laay biir nag mooy nga laay biir ñeel yàlla mi la bindoon subhaanahu ak yonentaam ba mu yónni ci yow sallallahu alayhi wa ak téeréem bi mu wàcce ci moom di alquranul karim ak kilifay diine yi nga xamee ne ñoo ñëw ginnaaw yenu yen ba ak li des ci mbooleem jullit ñi moom saydunaaw mawlaana imaamullahi alayhi salaatu wasalaam wax na ne laay biir ñeel yàlla nag mooy nga wéetal ka gis nga na mu boyale wax ja nga wéetal ka maanaam ci lépp lu mu mën a doon yàlla juuyoo na ca ak ay mbindeefam ginnaaw boo ko wéetalee sellal sellal ko na nga jëfe la mu lay digal te bàyyi lépp lu mu la tere nee ne nag bul yamale mbir mi ci sa bopp waaye yiw woowu na ko àggale ci nit ñi maanaam dee ko digal nit ñi comme ni koy digloo yow ci sa bopp ak di ko jëfe nga di leen woo ci loolu nee ne laay biir ñeel yonentaam ba sallallahu alayhi wa sallam nee ne mooy nga gëm ko ca la nga xam ne moom la ko yàlla yónni nee ne itam ginnaaw ba nga ko gëmee ne amana lépp lu mu la wax na nga ko dëgël ndax kat jàng ngeen ca téere ba mu wax ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam du waxe bànneexam du waxe bakkanam lépp lu mu wax nee ne loola day wax yu la wu jóge ci borom bi subhaanahu wa taala jëm ci moom mu jëm ci ñun nee ne nag itam nga topp sanga boobu ca lépp lu mu la digal lu mu la digal defal nee ne itam nga bàyyi lépp loo xam ne sanga boobu sallallahu alayhi wa sallam tere na la ka te itam doyul nee ne na ngay jëfe naam sax ca nag sax si jëfe ay sunnaam bañ kaa woyofal comme ñu baree baree baree bare ci jee jamono dañu la naa ah sunna la rek waaye du farata di gë loolu kooka nag tegu na ci yoonu sànku ndax sunna kenn du ko xeep ku ko xeeb xeebaali boroom sunna te ku xeeb boroom sunna xeebaali nga ko nga yónni te ku xeeb ko ko yónni ah di nga xam ne xeeb nga ku màgg nee na nag laaye biir ñeel téeréem ba di alquran de mooy nga sax si di ko jàng ak di ko durus ak di ko settantal ak di ko topp nee na ngay jëfe nag la ca biir téere ba ndax li jiitu du jariñ mukk feeg li ci ginnaaw topp sa maanaam njàngam kese ak gàddu alquran di dem te doo ko jëfe loolu musiba mu rëy la nee na nag laaye biir ñeel kilifa yi diine yi tegu sig njub nee na nag mooy nga soppaleen ëmbal leen cofeel ndax koo laa toppa danga koy soppa ba noppi na nga leen sopp nee na te nga toppaleen aha ca la nga xam ne nag moo di la jaadu waaye topp koo xamee ne doo ca xàmmee la jaadu ak la jaaduwul ci sunu jamono ju doy waar ji nga xamee ne léeg-léeg nga gis nit ñu di ko woowee kilifa diine waaye la muy woo nit ña du di ko su toppa du lu jaadu bu boobaa bul ka ca topp mukk laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq ah, amul benn mbindeef boo xam ne am nga genn ak topp goo xam ne war nañ la koo topp ci loo xam ne kat mooy yàlla mu nga ca nee na bul yam ci soppaleen nag te toppaleen waaye nanga leen dimbali jàppale leen ci mbiri diine nag lu ñu sumba dee leen ca jàppale ndax ñoom mënuñu demal seen bopp yéen itam mënu leen a demal seen bopp kon diine ji ñoom ak yéen ñoo ko bokk mu jóge ci suñu borom subhaanahu wa dañ ca war a dimbalante ndax suñu borom ba kat moo wax ne wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan na leen di na di dimbalante ci ak mbaax lépp luy jur mbaax lépp loo xam ne mbaax nga sa ak ragal yàllaa nga ca nangeen ca jàppalante te sofaan ba nag na ngeen moytu di sa jàppalante muy loo xam ne bàkkaar mu nga ca ak ak jalgati nee ne nag e, na ngay digal nit ñi ci loola nee ne deel wax nit ñi di leen soññe ñuy topp seeni kilifa te ëmbal leen cofeel te bañ leen ñuy mooy kilifa yooyu bu fekkee ne kilifa lañ leen di woo dëppoo na ak li leen yàlla ak yonent ba woo nee ne laay biir ñeel mbooleem jullit ñi nag mooy nga soppaleen ñoom ñépp comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee démb nee ne almuminu jullit day yuhibbul muminin day day day soppa mbooleem jullit ñi wala yabghadu ahadan minhum du ca bañ kenn waaw loolu nag daanaka lu jafe la tey jii ci julliti tey waaye nag bind baa ngoog jullit daal day ëmbal mbokki jullitam yépp a cofeel waaye nag du ca bañ kenn tey nag ngay gis sofaan bi jullit boo xam ne mu ngi ëmbal mbokki jullitam musiba waaye mu ngay wan cofeel koo xam ne nekkul ci diine lislaam xalaas nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dëgg dëggi jullit mooy day mbokk bëggal mbokkam jullitam day aha la mu bëggal boppam lépp loo bëggal sa boppa ci lu baax nee na bëggal ko yéene ko sa mbokkam jullit lépp loo xam ne itam bëggoo ko ak lor nekk ca bu ko yéene sa mbokkam jullit loolu mooy lislaam sanga bu tedda bi sallallahu alayhi wa sallam wax na démb ne bu leen bañante na ngeen di diglante aw yiw tey terente yow ñaaw téef te ngeen yéwénal seen diggante waaye nag ci njëkk defaroo leen ci njëkk nee ne maa ngi dellu di leen dénkaat moom Seydina Imaamullahi alayhi salaatu salaam mooy wax maa ngi dellu di leen denkaat ngeen jëmbat seen diggante cofeel neene waa ajjana day dañuy soppante te bu leen def seen diggante ak nooneel ak ak noonoo ak bañante nee na ngeen xam ne ay bokk ngeen te ngeen xam ne kat jullit mbokkam moo di jullit kam ni ke suñu borom ba jalla wa ala waxe naka jullit ñi daal nee na ay bokk lañ na ngeen yéwénal seen diggante diggante bokk gi te ragal yàlla ndaxte li ëllëg mu yërëm leen kon jullit jullitey mbokkam ndax innama moom adaatu xasr la leneen lu dul jullit mu ngoogu day génn ci aaya bii mu ne jullit innamaa ji moo tax jullit bokkam moo dib jullit kon nag bokkook pas-pas mu ngoogu mooy nga ca suñu boroom bokkoog pas-pas jullit ñépp ñoo bokk pas-pas kenn moo leen boole mooy laay allahu yaalamu na ngeen xam yéen jullit ñi nakab jullit de day tàppoonteeg moroomi jullitam day tàppook nit ñi itam si ay jëflante tàppook jullit ñi tàppoog li des ci nit ñi feek tàppoonte googu ak mooy yàlla nekku sa ak jalgati diine nee ne koo xam ne doo dugganteeg nit ñi nit ñi duñ dugganteeg yow nee ne ndimmalam yàlla du wàcc ci yow kon nag tàppoo googu bennoo googu mu nuy woo sallallahu alayhi wa sallam di si oo démb di ñu si oo tey mooy li nga xam ne mooy melokaani jullit ñi dellul ci téere bu tedd ba di nga ca fekk suñu boroom jalla wa ala di ñu soññ ay yoon ci mbir moomu ngir ñu mën a am doole joo xam ne dinañ ca mën a wëy waaye fekk ñu ngi bañante mbaa ñuy texale ko mbaa ñu keneen ku ne ci beneen diine gënal nu suñu bopp bu boobaa dañu doyadi lool te bu boobaa la ñuy dal ci li nga xam ne moo di daanu daanu yi ñuy dal bu boobaa duñu ca jóg ab jullit day fonk mbokkam jullitam waaye taxaw di saaga sa mbokkam jullit di ko ŋàññ alanan ñëpp di gis ñëpp di dégg loolu ñaaw na wala ngay jëf ci moom jëf ju ñaaw ju mu mën a doon loolu rafetul jullit day tàppoo ak mbokkam jullitam kon nag loolu mbokki jullit ñi du ñu dañ di ko fàttali jullit ñi kem ni ka sanga yu tedd yi daan taxaw fii daan fàttalee ci bind yii may wax nii sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa wax ko démb baamtuwaat ko tey kon loolu moo di ay dénkaaneem ëmb na lépp ëmb na lépp li nga xamee ne tey jullit bi aajowoo na ko ndax jullit ñi tey mbokki jullit ñi aajowoo nañu bëggante aajowoo nañu bennoo aajowoo nañu ormalante ndax ku gis tey lii xew ci ay réseau sociaux ak yeneen ak yeneen yu mu mën a doon danga yéemu ci yàlla di tiit yow ci sa jëmmi bopp ndax lii ah jullit war na koo meloo walla déet jullit ba daal daanaka turu jullit la dese ci lislaamam waaye nag jëf jëmuy def daanaka doonatul jëfi jullit ab jullit day def yëfi jullit ab jullit day wax yëf waxi jullit te jullit ñi nañu bennoo te moytu lépp lu leen di tàggale bokki jullit ñi sang bu tedd bi xamal nañu ne nun ñépp ay bokka lañ benn sant lañu am mooy allahu di laay nun ñépp nag sant yi gaar yépp fii la rekk waaye képp ku fi ñëw tur wi fi indi mooy Abdoulaye ba ker ñu lay jox fii weneenu tur ku fiy jógeet noonu kon nag loolu lu koy dindi nañ ci yàlla musal nañu farlu ci bennoo nekk benn te bañ di ŋàññante bañ di ayibalante bañ di xeebante loolu nag mu ngi fes lool ci yi ma wax nii muy lu bon loo xam ne feeñ na ci àddina du lu bon sax waaye dañ koy jëfandikoo ci anam gu bon gu ñaaw ndax ku ca bëgg jariñu mën na laa jariñ waaye ka muy lor mooy ki koy jëfandikoo ci anam gi koy lor mu ngi mel ni paaka nit ki mën na koo yor di ko jëfandikoo ci lu koy jariñ waaye itam nit mën na koo yor di ko jëfandikoo ci lu koy lor di lor keneen mbokki jullit ñi lépp luy texale jullit ak moroomam walla muy indi fitna ci àddina bi wala ci réew mi war nanu koo moytu te bokk na ca loola li nuy woowe boddikonte ci biiru xeet ak par parloo par parloo lu bon la iblis a ko fi jëkk andi boddikonte lu bon la iblis moo ko fi jëkk indi kat bi sama borom ba jalla wa ala bindee seydina adam alayhi salaatu wa salaam digal malaaka yi ne nañu ko sujootal ñoom ñëpp ndigal la ndigalal yàlla bu ñëwee amoo looy tànn dangay def rekk wala nga bàyyi boo defee dina la fay boo bàyyeet dina la fay waaye def defe naa moo gën de kooka yal na ko yàlla rëbb malaaka yëpp dañu rot sujootal maam aadama ci ndigalal suñ borom jalla wa ala waaye moom mu lànk lu tax mu lànk mbiru boddinte ak xeebante ci wàllu xeet nga xam ne tey balaa la bu nekk suñum réew te balaa la boo xam ne nag du balaa bu ndaw ndax toj na àddina fu ne balaa la boo xam ne yel woon muy feeñ ci jullit ñi sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee ca ajam gu mu jë dafa wax ne ala inna amra aljahiliyati mawduun taxta qadami haza lépp lu bokk ci ceddo te lislaam sib ka nee ne yëkki naa sama duggul tànk teg ci suuf dëgg ci kawam bokk na ca nag boddinte gii nga xam ne léeg-léeg rek ñu dégg benn nit ak fitna génn rek wax-wax joo xam ne da yëngal àddina te mën a toj àddina te loolu mu ngi suñu biir nag ba léegi mu ngi suñu biir te nag li ma jaaxal mooy woyofal giñ la giñ ko woyofal te moo boo jàngee histoire li mu jaxase si àddina ak li mu toj si àddina ak li mu yóbbu ci ay ruu ci àddina kenn xamul nu mu toll te loolu xajul fii ci sunum réew looloo tax sa nga bii alayhi salaatu wasalaam dégg ngeen ko ba mu ñëwee am na lu fi fekk loolu lu am la waaye nag dafa am loo xam ne moo nu boole ñun ñëpp muy ki nu bind subhaanahu wa taala ak ki ñu meññ moom sallallahu alayhi wa sallam wax na démb ne xadiisu jaabir ibnu abdillahi radiallahu anhu qaal xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi wasati ayaami tashriq fa qaala ya ayuha nnaas inna rabbakum waaxid wa inna abaakum waaxid ala laa fadla li arabiyin ala ajami wala li ajamiyin ala arabi wala li ahmara ala aswad wala li aswada ala ahmar illa bi taqwa ala hal ballagt qaalu bala ya rasul allah qaala fal yuballig shaahidu lxaaib loolu la ca jeexalem ci xadis boobu mooy wasat ayaam tashriq muy fan yi mujj ci aj ñetti fan yi mujj ci aj ga ca digg ba la doon xutbaa loolu maanaam booba nit ñaa ngi waajal daanaka bur dem nga xam ne boo ca matalee ñaar ya ngaa yewweeku waaw ci bis yooyu nga xam ne ñu ngi waaj a tàggutoo ak aj jaabir ibnu abdillahi wax na ne bés yooyu ñu mujje daje ak moom sallallahu alayhi wa sallam nit ñi war a tasaaroo ca nag taxawalaat nit ña naaw xutbaam ba taxawalaat na leen dal di wax ne yaa ayuha naas ñi déglu leen ma newul sax yaa ayuhal muminuun ndax fin baa tax ku dem na nga ko jottali jullit baa ku dul jullit ndax day toj àddina fitna la baaxul ibliis a ko fi jëkk a wax moo ko fi jëkk a oote moo lànk su jootal aadam ci kaw xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min gis nga yaa ngi ma bind si sawara moom nga bind ko ci ci ci ban suuf nga ko bind kon maa ko gën maanaam mu ngi delloo mbir yi ci yoo xam ne du nattukaay comme ñun niñ koy natte tey jii boroom yëx bu rëy ak deret ju foor ak gellawaar ak xeet yooyu ñuy wax xee di ko xeeb nag ba léegi mu ngi fi mu ne xut ba nañu moom sallallahu alayhi wa ca digg bis yooyu nga xam ne mooy ayaamu tashriq ba mu waxee ne yéen nit ñi dama leen bëgg a fàttali ne seen boroom benn boroom ngeen am kenn dong nga leen bind mooy yàlla subhaanahu wa taala kulli shay moo bind lépp lu mu mën a doon amul dara fii ci àddina ak feneen fu mu mën a doon lu dul ne yàllaa ko bind lépp yàllaa ko bind inna rabbakum waahid mu ne wa inna abaakum waahid seen baay benn la waaye na ma ne arab bi gënewul ajam bi dara amul benn xeetu ngëneel boo xam ne naar ba gëne na ko ajam ba ajam mooy ku dul arab nee ne ajam bi it gënewul naar ba dara nee ne nit ku xees nit ku xonq nit ku weex gënewul ku ñuul dara sallallahu alayhi wa sallam mooy wax xam ngeen nee ne ku xonq gënul ku ñuul amul lu mu ko gën a ci dara nee ne ku ñuul it gënewul dara ku xonq waa lu ñuy gënantee yaa rasulullah mu ne inna akramakum inda allahi atqaakum mu ne ki leen gën gën leen a tedd ci yàlla mooy ki leen gën a ragal yàlla nattukaay bi benn la ci ragal yàlla la ñuy gënantee du ci leneen leneen loo fi indi rek yaax iblis a ànd leneen loo wax beneen nattukaay boo indi rek jëlaat nga dekkal nga nattukaayu iblis alayhi laanatullahi mu ne nag ki leen gën a tedd ca yàlla mooy ki leen gën a ragal yàlla mu ne ah wér na ni jottali naa leen ñu nekk ko ah waaw waaw yaa rasulillahi mu ne yàlla seedeel ëllëg a tax yàlla seedeel mu ne yéen ku ci dem dellu sab dëkk ak sa gox foo mën a jóge lii ma wax tey jii ci fan yu mujj yi na jottali ñooña xanaa kon am na solo bàyyiw leen ñu dem da leen téyewaat ngir mbir mii mu waxaat saaba bu tedd bu ñu wax abu zar ne ka ondur fa innaka lasta bi xayrin min ahmara wala aswad illa an tafdulahu bi taqwaan nee ne dama bëgg nga xam ne yow abu zar abu zar dafa am juumte gu mel noonu mu defoon ci bilaal ŋàññaka ci ñuulaayu yaayam yonen bal mer lool ne ka innaka mriun fii ka jaahiliya ah abu zar yow day li ngay baax baax baax am nag ca dogu des ci yow muy bëgg a gaañ boppam dem na ba jël lex ba teg ci suuf na jila bilaal joggil sama xar kanam bilaal ne ko jombana maa joggi ci xar kanam guy sujootul rabbal alamin xar kanam goo xam ne day sujootul rabbal alamin man duma jël sama tàn dëggul tànka di ko teg ci xar kanam googu mitti woon ko lool ndax yonen bi moo ko ne am na xeetu ceddo gu des ci yow ndax daka ne doomi ku ñuul ki waaw moo tax mu nekk ayartahoo bi ummi ndax da koy xase yaayam ñuulaayu yaayam nga koy xase mu nekk Abu Zar yow de ak ceddo des na ci yow te loolu du lu daw boo ko waxee nit ak yàlla ak ceddo lu bona bona bona bon la am na ca lu baax la ca baax lislaam nangu nag waaye la ca bon a gën a bari di nga gis nag kuy fëgg dënn naan sama maam ceddo la bul tax sama jikkoy ceddo ñëw xamul lu di ceddo waaw mu wax sallallahu alayhi wa Abu Zar nekk nag ah ak ceddo des na ci yow Abu Hurayra radiyallahu anhu bind ba dafa xam ne annahu tala qawla allahi taala inna akramakum inda allahi atqaakum fa qaala inna allaha yaquulu yawma alqiyaama yaa ayuha nnaas inni jacaltu nasaban wa jacaltum nasaba fa jacaltu akramakum atqaakum fa abaytum illa an taqulu fulaan ibnu fulaan akramu min fulaan ibnu fulaan wa inni alyawma arfau nasabi wa adau ansaabakum ayna almuttaquun ayna almuttaquun ba fa wax ji jeex saaba bu tëdd bu ñu wax abu hurayra du koy dégg rek ci yonent bi la koy dégg mu dal di wax ne dafa jàngat aaya bi ki gën a tedd ci yéen mooy ki leen gën a ragal yàlla mu ne mbokki jullit ñi suñu boroom yéen nit ñi suñu boroom ëllëg dina taxaw ak ay jaamam ne leen yéen nit ñi man dey dama taxawal aw askan bind aw askan samp aw askan yéen ngeen fent seen askani bopp ma jël ki gën ci yéen def ko muy ka gën ca man ki gën a ragal yàlla ci yéen ki gën a ragal yàlla ci yéen muy ka gën ca man yéen ngeen bañ loolu naa diwu doomi diwu déew nuyu yax bu réy la bokkaat maamam niig maamam nele ci loolu la war a gëm a ne nii donte ci wàllu diine donte sa maam da dib yonenta tekkiwul ne danga war a gën nit ñi déedéet loolu taxul nga gën kenn sa maam di xayru xalqillaahi doyul pour nga gën kenn waxuma laa keneen nag ku ñu ne yonent bee jur baayam walla yaayam gënagula la gënagu de mën nañoo dem yowmal xiyaama nga gëm ko ndéem yaa ko ëpp ragal yàlla waaw yonentee seres noona keneen noonu keneen noonu kon maami ceddo kenn waxaalewu leen mu ne nag ngeen lànkanaan diwu doomi diwu maanaam comme ni ñu koy gisi fii rek di la tagge say maam jàppe ne sa maam yooyu ci nga war xeebe nit ñi si nga raxawti puukare woo ko rëy rëylu déedéet suñu boroom ne tey fii yawmal qiyaama la maa ilif lépp maa ilifoon fële waaye am nañu doon bañ sama kilifteef waaye fii ñépp dinañ ko nangu ñépp nangu fii sama kilifteef kon nag nee ne tey laay yëkki samaw askan dal di teg ci suuf seen askan yooyu dal dina ana ñi ragaloon yàlla nga gis ca ku weex gis ca ku ñuul gis ca arab ba gis ca ajamba moo leen taxawal mu ne ñii ñooy sama askan tey ñii ñooy sama askan kon sang bi indi laay nag pour ñu jëfe ka waxul woon pour ñu di ko wax rek déedéet mu ne inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum nee ne borom bi xoolul nu ngeen mel da nga ñuul déedéet moo ko def danga xonq déet moom moo ko def nee ne xoolul seen alal am nga ñu jàlle la néew la nga ñu puus la sa bunt ba yooyu fii la xew déedéet nee na lan lay xool ila qulubikum wa amalikum seen xol ak seeni jëf loolu la suñu borom soxla soxlawul leneen soxlawul leneen moom subhanahu wa taala xol ba lay xool ak jëf ja bu jëf ja baaxee xol ba sell yaa gën keneen ku amul loolu kon nag xoolul yooyu xoolul it suñu jëmm ak suñuy yaram ak déedéet yooyu yëpp xoolu ko jarula a taxul nga gën kenn kon mbokki jullit ñi loolu nañu ko dégge noonu sallallahu alayhi wa sallam ci xadis abi hurayra ba tey dafa wax su ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qiila yaa rasulullah yaa rasulallahi man akramu nnaas qaala atqaahu qaala qaalu laysa an hada nasaluk qaala fa yuusufu nabiyullahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillaahi ibni xalilillaahi qaalu laysa an hada nasaluk fa qaal an maadini alarab tasaluni xiyaaruhum fi ljahiliyati xiyaaruhum fi lislaami ida faquhu dañ ko laaj ku gën a si nit ñi ku gën a tedd si nit ñi mu ne ki leen gën a ragal yàlla ñu ne ka du loolu lañ lay laaj ku gën a tedda aw askan maanaam yuusuf mun ko yuusufa doomi yonentab yàlla doomi yonentab yàlla yonentab yàlla boobu di yanqub di doomi yonentab yàlla di ishaq di doomi eh, ki nga xam ne moo di xalilullah ibrahima kon yuusufu yonentab yàlla la doomi kan yanqub yonentab yàlla la doomi kan ishaq yonentab yàlla doomi kan xalilullah ibrahim muy yonentab yàlla ñu ne du loolu sax lañu la ñu waxagum mu ne ndax da ngeen may laaj ci cosaani araab yi mu ne ko mu ne nag xiyaaruhum fil jahiliyati xiyaaruhum fil islaami ida faquhu nee ni tànneef yewoon ca ceddo ga nga xam ne ñu ngi ay ceddo lañ woon waaye am nañ jikko yu rafet yu baax ay tànneef lañuy ñuy doon naat bu ñu duggee ci lislaam waaye nag ndéem am nañu dégg si diine moo tax diine li ñuy gënante diine ci lañuy ñuy gënante lii nag mbokki jullit ñi lu jara xeex la sanga bi nag xeex naka ndax buñ ci toogee di wax ak dàkkantal wi mu ñu jox fii du nu fi jóg te waxtu wi dafay dox waaye bunt bii nag dafa jar a déglu ndax léeg-léeg mu fëgg dal di tàkka tuuti mel ni ku fay fayul dafa gëmma ndax nit ñi tey loolu la ñuy dund mu ngi ci fépp mu ngi ci wàllu diine ji mu ngi ci wàllu politique bi mu ngi ci wàllu aada yi mu ngi ci lépp nag fii ci Sénégal ak feneen waaye fii ci Sénégal nag dafay fës waaye mu ngi mel ni nekkuñ fi dañuy xaar ba bomba ba tàkk ñuy door a wax abdullah ibnu omar radiallahu anhu ñëwaat ba tey dal di wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xataba annaasa yowma fatxi makka fa qaala ya ayuha annaas inna allaha qad azhaba ankum عبية الجاهلية وتعازمها بآبائها فالناس رجلان barrun taqiyun karimun ala allah wa faajirun saqiyun hayyinun ala allah wannaasu banu aadam wa xalaqa allahu aadama min turaab qaala allahu taala yaa ayyuha annaas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jacalnaakum sucuuban wa qabaa'ila li tacaarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ba tey Ablaay ibnu Omar ñëw ne kaay yamul di ko wax iyaamu tasriq waaye li ñuy wax fatxu makk gi ngeen gëm gi ngeen dégg muy ubbi gañ doon ubbi makka mbooloo ma dajeeti mu ne keroog waxaat na nee ne yaa ayuhannaas yéen nit ñi inna allaha qad azhaba ankum obbiyata aljahilia dama bëgg ngeen xam ne yàlla dindi na ci seen biir puukare puukare wu ceddo yi ak damu gañu daan damoo seeni maam mu ne yàlla araamal na loolu seen biir dindi na ko ci seen biir ubbiyat al jahiliya wa taazumaha bi abaiha ak màgga màggalu gañ doon màggalu si kaw nit ñi ngir seeni maam ak seeni baay ku la gën maam moo la gën loolu nee na ceddo la yàlla génne na ko seen biir bés ni ki tey ubbiyat al jahiliya wa taazumaha bi abaiha mu ne kaay bul sonna nit ñi xaaj leen ñaari xaaj mu ne fa naasu rajulaan nit ñi daal ñaar lañ barrun taqiyun karimun alallah ku baax ragal yàlla tedd fa boroomam muy Abdoulaye yaa ngi dégg kooku mooy benn bi mu ne wa faajirun saqiyun hayyinun alallah ak koo xam ne kàccoor la bu texee di bu texee di koo xam ne ku tekkiwul dara la ca yàlla ku suufe la ca yàlla ku torox la ca yàlla dégg nga loolu faajirun saqiy hayyinun alallah kon nit ñi ñaar lañu waaw ki baax tedd ca yàlla ragal yàlla tedd fa moom donta ab juddoom demewul noonu ki nga xam ne moom ab kàccoor la moom ci boppam ku texee di la ku torox ca suñu boroom subhaanahu wa ak juddoom ak lu mu kawe kawe nee na nag ki gën a tedd ci yéen ca yàlla mooy ki gën a ragal mu daldi wax ne yéen ñëpp ci aadama ngeen jóge te aadama mu ngi jóge ci suuf iblis da doon wax aadama dafa bañal aadama lu tax nee na li yàlla binde moo gën li ko bi waaye yow yow doomi aadama ak doomi adama looy wax bu boobaa kii mu bindale suuf yow mu bindale suuf boobaa looy wax xanaa dooma ne aadama mi nga jóge ak aadama mi ma jóge du benn wala suuf siñ la bindeek suuf siñ ma binde du benn kële am na lu muy jéem a teg yàlla toroxol ka kon yow nag yéen ñaar ñi bokk ko origine kon mu ngoogu nee na suñu boroom dafa wax ne yéen nit ñi nee ne maa leen bind ci góor ak jigéen muy aadama ak awa ma def leen ngeen doon ay askan yu mag ak ay giir lu tax ngir ngeen xamante xàmmente ku nekk xam sa bokk war koo mën a jokk xam bokk keneen ndax ci la ñuy xamante ki bokk ak diw diw ak diw li ñu bokk ak ñi war a moytunte ci wàllu sëy ak yu mel noonu ak wàllu miiraas ak yépp lislaam ñëwul ngir déjjati ay askan déedéet lamu mu mooy di ko def ko muy balance u askan fi lay des sallallahu alayhi wa sallam da doon wax naan taallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arhamakum fa inna silata arrahimi mahabbatun fi l ahli fi l wa mansaatun fi l asar nee ne na ngeen jàng ci seenu askan lu ngeen mën a jokke seen ak bokk kon l'islam di wul di si dindi ay askan lu ngeen mën a jokke seen ak bokk ndax nee na jokk ak bokk ah day tax mbokk yi bëgg la njaboot gi bëgg la te itam dafay tax yàlla yokk ci sa alal kazalika na ko noonu sëw tur fi lay des ndax bu ngay def lu baax yaa ngi dégg kon loolu suñu boroom subhaanahu wa wax na ka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali ko moom yonent boobu nag sallallahu alayhi wa wax nañu ne ci xadiis abi malik mu wax ne arbaun fi ummati min amri aljahiliyati laa yatrukunahun alfaxru fi l ahsaab wa taanu fi l ansaab wal istisqa bi nujum wan niyaaxa nee na ñeenti mbir a ngi sama xeet feebar la fi léegi dugg na fi feebar boobu comme ni fi virus virus bi dugge woon ñeente yooyu yan la mu ne alfaxru fi l ahsaab di damoo ay maam ak yax bu rëy mooy li ñu doon wax di ko puukarewoo ak lan mu ne wa taanu fi l ak di jam ci askanu nit ñi ak di gàkkal askanu nit ñi ñeeño la waaw di yëkki sa bakken ci moom ak di ko xeex gis nañu liy am ci sëy nga gis ñaar ñuy bëggante nga bañ ne doo leen maye ba maara day taali am lu ca xew nga continuer bañ ne doo leen maye ndax kii kat fa mu jógee ki fii jóge bokkuñ kii gella war la xam nga ne kii moom nangam la mu ne nag loolu dina dugg sama xeet wal istisqa bi nujum ak di tawloo ay biddéew yàlla tawab tawam nga di ka askane biddéew loolu am na ci ceddo gi mu ngi ci suñu biir ba tey nee ne duñu ko bàyyi ña ca nekk boo seetloo ñi gëm yooyu duñ ko mas a bàyyi ci la ñuy nekk di ko défendre ba yàlla jël leen wan ni yaaxa ak yuuxu si dëj nit faatu ngay xalangu di yuuxu nee ne loolu ci mbiri ceddo la duñu ko bàyyi mu ngi seen biir waaye nag dafa waxaat ne comme duñu ko bàyyi mu ne nag kullukum kullukum banu aadam yéen ñëpp doom aadama ngeen kullukum banu aadam wa aadamu min turaab wa la yantahiyanna qawmun yafxaruuna bi aabaa'ihim aw la yakununna ahwana ala allahi min al jilaan nee na doomi aadama ngeen te am nañu ko dul bàyyi waaye maa ngi leen di artu nañu daytalu te xam ne bu ñu daytalawul bàyyi loolu dinañu doye di ca yàlla torox ca yàlla ba gën a doye di yi mbërëngaan mbërëngaan day fekk ay ay ay fu nit dem joor nit dem fa jonkan fa dem àll ba loolu ñuy wax muy bërëng noonu gunuur booba di bërëng di jël loolu sobe soosu di ko bërëng mu ne ku ka ci bàyyiwul ay waasoo ki yooyu ca yàlla bu ñu dem yaay gën a torox gunuur boobu dégg ngeen jilaan jam u jox mooy plurielu jool benn bi moom lañ tudd jool bi si des jeex la nee ne ku si bàyyiwul waayu waaso yii ngeen di def nii di ngeen ko bàyyi wala yàlla dina leen toroxal ba ngeen gën a torox gunuur boobu kon loolu musiba la mu beral ci waa ceddo yi nee ne ku si bàyyiwul di damoo sa maami ceddo di fëgg dën na naan sa maam ceddo la nee moom itam di torox ni gunóor boobu allati tadfau natan bi anfiha waaw nee ne ci bakkan bi ci lay pousser sobe yooyu kon kooku torox na mu ne ku ko ci bàyyiwul foofu ngay mujje mu ne itam ku ci bàyyiwul di damoo ay maam yoo xam ne këriñ ak sawara lañ muy ñi ñi nga xam ne ñooy damoo maam ceddo yi mu ne ku ko ci bàyyiwul di nga gën a torox gunóor boobu mu ne nag taanu fil ansaab googu ñu ngi koy gis di gàkkal ay nit xeetu lëmb nga di leen gàkkal ndax seenu askan néegab lëmb nga di leen gàkkal ndax seenu askan ñu wax ne kon moom sallallahu alayhi wa wax na ne ansa ansaabukum haadihi laysat bi masabatin ala ahadikum kullukum banu aadam laa fadla li ahadin ala ahadin illa an yafdalahu bi diini aw taqwa nee ne moom sallallahu alayhi wa seen askan yi du aw saaga ci yéen du lu ngeen di xastante neen yéen ñëpp aadama leen fi indi doomi aadama ngeen moo leen meññ aadama ci suuf la jóge amul kenn ku gën moroomam lu dul ci taqwa mu ne kafa bi rajuli an yakuna baziyan faaxishan baxilan nee ne doy na si nit ki ciw ay ak bàkkaar ak ak mbon làmmeñ wu ñaaw kàccoor ba noppi nay nee ne loolu ay melokaan yu sibu la ci ab jullit léeg-léeg nag nga gis nit taxaw ŋàñña askanu lëmb boobu gën a bon te boobu moom mooy bi gën a dangereux ci yépp ndax askanu lëmm woowu daf ci am ay nit yàlla ñëpp ànduñu bon ñëpp ànduñu bon lu jara moytu la si hadisu Aïcha soxna si yoneen bi sallallahu alayhi wa sallam di ndey jullit ñi moo ko dégg mi raaraan ci yoneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne inna azama annaasi inda allahi firyatan yawma alqiyama arrajulu yahju alqabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi nee ne bu ñu demee yowmal xiyaam bokk na ci ñi gën a màgg mbugal ca yàlla gën a màgg aw fen gën a màgg aw duur ca yàlla mooy koo xam ne dafa fekk askanu lëmma mu ne baaxuñ askanu lëmma mu maasale leen jox leen benn at ay nangam lañu mu mel ni nga ne wolof baaxul ah yoneen na indi nga musiba ndax wolof ñëpp bonul amul wenn xeet woo xam ne amul wenn askan boo xam ne ñëpp ànd bon yàlla dafa am ay nitam fépp dafa am ay nitam ci xeet yëpp na am ka ci waasu yëpp am ka ci askan yëpp même xeet yi yàlla alak sax donte kenn naa sa sooyee di yonante bu mu alak kooka ca xeet wala bokka ku baax la kon nag nee na ki gën a am problème yàllaaxira mooy ki jàkkaarloo ak nit wala boog jàkkaarloog mbooloo ne kenn baaxu fa wala ñoom ñépp sàcc lañ walay fenkat lañ wala nangam lañ wala nangam lañ ci anam yu bari la xadis bi ñëwee lii ma lay wax demal ci muskilul athar boobu ndax danger bi ci am mu waxaat ne azamu nnaasi jurman yowma alqiyaama azamu nnaasi jurman yowma alqiyaama insaanun shaa'ir yahjul qabilata bi asri bi asriha wa rajulun intafa min abihi nee na ki gën a màgg bàkkaar yowmal qiyaama bokka na ci koo xam ne waykat la bu njëkk dañ ko daan jaarale ci waykat yi ak ah ku dul waykat boo bëggee xas nit nga xas ka xasaale fa mu bokk mu ne kooku bàkkaaram màgg na ci yàlla màgg na ci yàlla ak koo xam ne kat xam na ne kii mooy baayam mu weddi ka ne sama bàyyi bii juruma askane baayam keneen maanaam kon askane nga see ay njaaloo moo tax ci beneen riwaaya mu ne wa zanna ummahu ci beneen riwaaya rajulun haaja rajulan fa hajal qabilata bi asriha waajoo xam ne dafa xasan xas nit xasaale fa mu bokk nañu moytu yooyu nañu bàyyi yooyu nañu ko teg ci suuf ah nit mën naa wax ne ah yooyu jàll na ah kay diine du noonu mbiri yàlla du jàll ci noonu nun fii dañu xamul loolu te li mu mën a jur ci ay fitna dafa bari ñu moytu mbir yooyu ndax mbir moomu bu màgg la ndax nit ñi kat foo fi dem askan woo fi dem nga tax taxal ñëpp ñooñu ëllëg yowmal xiyaam dañuy ranku ne jël sa àq ci moom bu fekkee ne la nga wax ci ñoom nekkul bu nekkee du tere ñu wax ndax dëgg leen xas kon nañu moytu yooyu olof ak pëlëg ak pël gënantewuñu ci yooyu déedéet si ragal yàlla lañ jëm géwél baag tëgg baag ñeeño ba ci ragal yàlla kon nañu booloo nekk benn delloo suñu bopp yàlla subhanahu wa loolu mooy dëgg nañu booloo nekk benn delloo suñu bopp suñu borom subhanahu wa taala te bàyyi xeebante bi al muslimu axul la sallallahu alayhi wa sallam laa yazlimuhu wala yaxzulu attaqwa haahuna wa huwa yusiru ila sadrihi salasa marat alayhi wa sallam nee jullit bi bokkam jullitam jullit mooy bokkam du ko tooñ te du ko gécci bu gisee ñu di ko tooñ ak di ko néewal doole du ko seetaan mu ne nag ragal yàlla fii la ne ragal yàlla fii la mu ne bi xasbi mri'in min alcharri an yaxqira axaahu lmuslim kullu lmuslimi ala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu nee ne nag doy na ci ab jullit ci bakkaar ak aw ay muy xeeb mbokkam jullitam nu rawati nag bu fekkee ne mbiru waaso moo lal xeebeel googu bu ko mbiru waaso lalee musiba la kon xeebante warul am suñu biir am suñu biir nanu moytu loolu ñu fàttaliwaat loolu sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadiis ibnu omar ndax ñun sunuy nattukaay fii toujours ñu ngi ko teg ci yeneen yoo xam ne sunu boroom wàccew ko sanga bu tedd bi nag sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee dafa nu boole nun ñépp ci benn mbir mooy buum ak yàlla yaa man bihim saharatul alqaabu fii millati tawxiidi wal ahsaabu mooy ki nga xamee ne mbooleem dàkkantal yi nga xam ne dañ ciy ayibalante da ko jël seeyal ka ci yoonu tawxiid jël li nga xam ne mooy askan yi ñuy demoo yépp dal di koy seeyal ci bi yoonu tawxiid dal di tënk ñépp ci suñu boroom subhaanahu wa taala ni ñépp nañu dellu ci yàlla kenn du taxaw wax sa moroom ne sama yàlla moo gën ci yàlla moo tax mu mu mu tënk nu nun ñépp ci benn buum mooy lay te xam ne la imaamul xataabi wax ca leeral wax jooja sallallahu alayhi wa waxoon ne annaasu rajulaani barun taqiyun karimun alallah wa faajirun saqiyun hayinun alallah ki baax ragal yàlla tedd dafa yàlla ak ki nga xamee ne kàccoor la ku texee di la ku ku ku ku di ca yàlla mu ne nag barun taqi ay muminun taqi wa in lam yakun xasiban fi qawmi mu ne faajirun hay hayinun faajir hayin faajirun saqi wa huwa al la wax wa huwa dani wa in kaana fi ahlihi sharifan rafian rafian nee ne ñaar yooyoo fi jullit bi baax doonte ci askan wu rëy la bokk wu wu ñuy xeeb doonte ci askan wu ñuy xeeb la bokk ñaata lañ fiy xeeb ci askan nga ñëw ñu dem ci yàlla mu gën la laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisain asa an yakunna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismu lfusuqu baada al iman wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun loolu réglé na lépp bu ñu ñaawalante yow ku góor ki man ngay ñaawal koo xam ne moo la gën man nga ko xeeb xam ne moo ko moo la gën fuuf ci yàlla yow ku jigéen ki nit ki noonu nee itam bu ñu ay ayibalante ci yii nga xamee ne mooy sunuy askan yi ak di joxente ay dàkkantal yoo xamee ne ah lislaam dindi na ko day lor ki nga koy wax yii fi xew tey loolu day lor kon ki gën ci yàlla mooy ki ko gën ragal te sallallahu alayhi wa wax na ne man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu nee na képp koo xam ne képp ko xam ne sa jëf moo la tax a tardé moo tax nga yéex nit ñi raw la bu ñu demee sa yàlla saw askan du tax nga raw kenn ku sa jëf tax a tardé saw askan du tax nga raw kenn doomi yonti yàlla noox leer na ca mbiram leer na askanam wallu ka keroog bi ko yàlla di alak ku dul doomi noox mu ngi sa gaal ga yàlla jàlle ko waaye moom day jëfam moo ko tax a tardé jëfam moo ko suuxal sa ndox bi looloo tax ba muy wax ak yàlla ci wàllu askan ak njureel yàlla wax ak moom ci wàllu jëf innahu amalun gayru saalih waxumal yaa ko jur wala juróo jëf ji laay wax baaxul ma boole kaak ñi seen jëf baaxul ka jëfam baax donte ku ñuy xeeb la ma boole kaak yow kon lii mbokki jullit ñi moom lañu façon laay biir jullit ñi nun nag duñu ñoo xam ne dañuy bàyyi mbir yoo xam ne day tas am réew day dekkal fitna ngir rekk nii nii jéena déedéet dañu koy wax waxaat ka ndax ñun fii yàlla dimbali nañu sang bu tedd bi sallallahu alayhi génn nañu ci yooyu génn nañu ci yooyu boole nu ñun ñépp yu buum ak allah taxta raayat allah moo tax bind ba doon wax ne raayatuhu maktubun fiha ismullahi al raayaam wax allahu lañ ca bind maanaam albayatu lillahi jaayante ak yàlla ci yeneen riwaaya kon nag bu ñu bëggee mucc nañu moytu xeebante bi gis nga sëy yii tey jii ñaati jullit lañu fi gàntu ngir wax yooyu ba léegi mu ngi fi gàntub jullit ngir wax yu demee noonu nit jóge fële xamoo sax aw askanam waaye yor na alal yaakaare nga ko alal ma nga may ko sa doom jullit bu baax bu ragal yàlla nga bañ ne doo ko may sa doom nañu moytu lu ni mel almuminuuna tatakaafau dimaahum wa yasaa bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum nee na jullit ñépp seen deret nawloonte na kon ak nawloonte ci jul lislaam moo di jullit ida jaakum man tardawna diinahu wa xuluqa fa zawijuhu illa an tafaluhu illaa tafaaluhu takun fitnatun wa fasaadun kabir aw kama qaala sallallahu alayhi wa nee na bu ñëwee nit bu ñëwee ci seen njaboot di sàkku di labat si nee na ngeen ko may soxna te wóolu ngeen diineem óolu ragal yàlla may leen ko soxna ne bu leen ko deful nag fitna bu dul jeex lay jur ak yàq mu dul jeex nanu delluwaat ci sunu boroom te xam ne benn boroom la ñu am moo ñu bind ñépp ñun ñëpp moo ñu bind te sallallahu alayhi wa wax na si xadisu anas alxalqu iyaalullah yonent bee wax nee na alxalqu iyaalullahi bu ñu ñëwee askane seen boppa laaw na kon wàcce nañ nee na mbindee fi njabootu yàlla lañ wa axabu wa ahabu ibadillahi ila llahi ki gën a sopp ca yàlla jaam yàlla yi ki ci yàlla gën a soppa mooy anfaahum li ayaalihi mooy que leen ëppal njariñ njabootam mu nekkoon njaboot gi njaboot ak yàlla la kon nag nañu askane ñun ñépp suñu boppa yàlla bu ñu amee keneen ku ñu ba askane suñu boppa mooy ki ñu meñña di aadama jeex na waaye nag aadama yàlla ki bind moo bind suuf sam ko binde nañu delluwaat ci suñu boroom yàlla na nu yàlla defal jàmm yàlla na nu yàlla defal sutura yàlla na nu yàlla musal ci li nga xam ne mooy jeexiti jaahiliya yàlla na ñu yàlla aar téyel nu réew téyel li nga xamee ne mooy làmmeñ ji nit ñi nit ñi nañ téye seen làmmeñ du leen sax yàlla leen koy tëyel ku ne responsable nga ca la ngay wax loolu tax sallallahu alayhi wa moom waxoon maas am sik alayka lisaanak téyel ma saw làmmeñ mu laaj ka ñett yoon mun ko téyel ma saw làmmañ dénk ma mun ko téyel ma saw làmmañ mun ko waaw yaa rasulullah waaye dénkaat ma mun ko téyel ma saw làmmañ mun ko dénkaat ma mun ko téyel ma saw làmmiñ ba muy ñett yoon mun ko awa ah, ndax nun dañ ñuy jàppe lii ñuy wax suñu làmmiñ mu ne ko ah yow de sa sa sa ndey ñàkk na la maanaam waxin la woon yow de sànku mu ne ana lan mooy ñoddi nit ñi ba ca ron biir ron sawara lu dul seen boobiti làmmiñ yi nit ñi nañu téye seen làmmiñ man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut nañu moytu àq te nag xastante bi ay àqala yu garaaw yoo xamee ne ca xadiisu muflis bële dégg ngeen ko ci waaw ñëw na andi fi ay julli yu bareek koor yu bareek jaamu yàlla yu bari waaye dégg nga lekk na alali kii lor na kii dóor na kii tuur na dereti kii xas na kii ndéem kenn nag nit boo ko xasee mu jël aw yoom ci yow boo xasee askanu la mën nooy def yàqu nañu téye sunu kii te nu góorgóorlu te bennoo nekk benn te jullit ormaal mbokkam jullitam ormaal ku dul ub jullit te dëkk ak moom waaye nag bokkul itam ci ngëm yàlla ka dul ëpp jullit orma ba nga ko jox moo ëpp orma bi nga jox jullit bi loolu du dara waroo jox keneen orma bu ëpp bi nga jox jullit bi kon doya di ga ca yàlla doya di ga ca yàlla tey jii nag ku xas ab jullit xasaale seeni kilifa jaar ci ñoom wax lu bon kenn du la wax dara lu tax jullit ak jullit amul problème nañu saagante waaye bu laal keneen subhaanallah yonent bi sallallahu alayhi wa xool na kaaba gi ak tedd nga am yéem ko mun ko waaye ab jullit moo la gën a tedd ci yàlla kon nañu ormaalante amoo sañ-sañ ab ormaal keneen lu ëpp li nga war a ormaal jullit bi na nga ormaal sa boppa ormaal sa mbokkam jullit ormaal ka dul ab jullit ndéem jàmbuuree na ci sa mbir loolu mooy diine ji yal na nu yàlla defal jàmm defal ñu sutura dajale ñu ko yaakaar ya aaral na sunu xalifa bi xalifal islam yëpp def jàmm ci réew mi yal na yàlla faj aaju yëpp yal na yàlla nangul na sunuy koor boole nu ak ca ña nga xamee ne digoon na leen taqwa ci mbir mi yàlla nañ ci am te yàlla jéggal nu wasalaama salli ala